أنت المجيب والكريم والخريب إليك وحدك فرغت من سواك فكن بساك خيدي إلى هداك alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. mbokk yi ba nyungi ñu ngi Touba ci côté mosquée bi tamit plus particulièrement ci résidence Serigne Fallou résidence Serigne Fallou nak boo leen ko déggee xam ne ju sel moo fi dëkk muy soxna Maymuna di dom ci Serigne Fallou Mbàkke waaye tamit di jigen ci di borom makarimal. axla di euh, sëriñ Abdou Karim Mbacke euh, fii nag la ñu fas yéene dugg euh, waxtaan ak sëriñ bi buñ ko mënee am waaye tamit waxtaan ak ay njabootam ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk nekk fii ci biir kër gi di accueillir taalibe yi let's go Abdou ñu daal di dugg ci biir. asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu.

rek ci wàccaayu magal gi euh, son si ñu ngi lay nuyu tur nakala sona la. bu so bintu bintu may mëna Mbacke fadina ñu bàyyi rek nga waxtaan nak mbok internetu VIP people magalum ren gi euh, nan nga ko dundé ak mbass mi nga xamné ñew na wuy si. ñoo ngi sant yalla bu baax di julli ci Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam di sant soxna mëna Mbacke fadilu suñu buntu ci khadimul Mustafa di sant yàlla ci fekke bi ñu fekke màggal gi di ñaan yàlla ñu teewe ko màggal yu bari barki sëriñ Touba sëriñ Serigne Touba amul tànk ginnaaw tànk kanam rek la am ñun dañoo gimmi gimmee ci yoonu Serigne Touba di taalibe sëriñ Touba bëgg sëriñ Touba nag di socc sëriñ Touba benn benn bëgg-bëgg rek lañu am muy ngërëmul sëriñ Touba ak ngërëmul soxna Maymuna Mbàkke Falilou ba tax na weer wi suñu màggalee màggal gi ba ba ba ba ba gan ñi ñibbi dañuy tàmbali di waajaat màggal gi te bu dellu see suñu sañoon màggal gi day am fukki fan wala moom fukki fan ak juróom ndax gis bi ñuy gis doomu aadama yi te ñun dañoo dañoo dañoo dañoo dañoo gimmi ci ay nit gimmi ci daara di doomi daara di doomi dong moo tax bu ñu xamee ne bis bi dafa teru li ñuy gën a bégloo ci àdduna mooy taalibe yi nga xam ne dañoo nekkoon fu sori tey waaj di ñëw ñu namoon leen di leen gisaat waaw loolu loolu loolu man soxna Ndeye bu salaatu doomu soxna may galas waaw. jëlal bàyyi après loolu bu ma tëjee ko ñu waxtaan continuer waxtaan bi après ma tëjee tijji bi dégg nga mhm. euh, euh, lan nga mën a wax ci màggalum ren gi euh, par rapport ak bu daaw ndax daaw gisoon nañ ne fekkul woon mbas am ren nag yàlla def na sa màggalum maam bi fekk mbas am ñi naan nañ koo dakk ñi naan buñ ko dakk yow lan nga ban message nga mën a wax ci loolu. Mhm. waaw nañ ko nañ ko nañ dàq màggal gi ak nañ màggal màggal gi mhm. ñun amuñ ci kàddu. ndax biñuy tambali dama la wax ne la man doomu talibé la ci talibé la judd ci ndigal la ñuy euh lu sëriñ bu wax rek ci loolu lañ and ñun dal dañu dañu doon benn neeg bu nekk ci biir kër bu sëñ bi ne dugg leen ñu dugg bu ne tok leen ñu tok bu ne jog leen ñu jog loolu rek lañuy ñuy euh mbas mi nak ñoo ngi ci ñaan ci barki yalla ak barakatu Cheikh Mamadou Fadal yalla nako yalla yàlla oyofal ñi nga xam dañ ci jitu ji yalla na leen yalla yërëm ñi nga xam ño fi dess yalla buñu ñu luñu ragal ci barke Cheikhul Khadim mhm. rek lañ ci am luñuy ñuy wax. Mhm. Ah, yaay booy ah, bo doon comparer magal yi yi wessu ak bu ren bi lan ngay wax. wa man de ni ko jangate mhm. man dama defene man bima xamé ak léegi yagul de mais musuma gis magal bu melni wa musuma gis magal bu melni euh ci ci ci yene ak ak fit wiñ ko doon defé ak xéewal yi wacc ñew ci. Euh, mosuma gis màggal bu mel nii fekkee gu ma woon màggal bu mel nii ñoo ngi ñaan dal yàlla dàq mbas mi te bu déwee ne yàlla na gën a neex te bàyyi fi suñu waajur yi bàyyi fi mun taxaa

may Maymuna Mbàkke waaye moom it di euh, sër ci ki nga xam ni moom mooy sëriñ Abdou Karim Mbàkke waaye tamit yemuñu ci loolu ndax jëmm ji ñu toogal euh, doom la ci sëñ Abdou Karim Mbàkke euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu ji la jox sa wàccuwaay Euh, ñu doon waxtaan si fii nga xam ne teew nañ fi muy sa kër bàjjen euh, soxna a Mbàkke euh, tey màggalu ren gi lan nga mën a wax waaye ñu njëkkee rek ci jëmm ji ci kër gi di soxna a Mbàkke loo mën a wax ci moom aouzu billah bismillah inna waliyallah wa ma tawfiqi illa billah ñi ngi ñaanal sëñ Muntaxa al Bachir mu yàgg fi loolu te wér te yàgg taxawu liggéey sëriñ Touba bi te yàlla guddal fanam ba jox ko at yu yee murit yëpp wala ati yonent yàlla noohin ci toftal Serigne Abo ak baraka bi nga xam ne mooy Serigne Fallou noonu lañ koy ñaanalee njabootu ku tàddi ki Serigne Touba Xaadimu Rasuul yëpp yàlla guddal seen fan wéral seeni i cër ñu yàgg taxawu liggéeyu Serigne Touba bi yàgg jiitu taalibe yi topp ci seen ginnaaw euh, balaa may balaa may tontu ci question bi. média dafa dafa xaw a yéeme ma am lu ma bëgg a leeral. man. Euh, sëñ Mbàkke laa tudd. di doomi soxna may fàllu. waaye di jarbaatu sëñ Abdou Karim. Euh, xam naa nag bari na lu ñuy wax naan doomam laa. ndax da ngeen xaw a nduroo. waaye xam naa olof yi dañuy wax naan. Mhm. dafa am ñaari baat yu olof yi di faral wax. Mhm. olof yi dañuy wax naan. Mhm. nijaay. ak bàjjan ay baatu olof yu xóot la waaye dañ koo yàq nijaay mooy niyaay ki nga xam ne mook sa yaay benn lañ ci yow moo tax ñu tuddee ko niyaay mooy nijaay baay jenn mooy koo xam ne mook sa baay benn lañ mooy baay jenn kon bàjjan ak nijaay mooy benn famille bi rek kon ñu ñu sant yàlla bu baax baax ci question boobu nga laaj muy si soxna may fàllu soxna may nag euh, wax ci moom lu lu jafe la waaye lu yomb la tamit. Mm. soxna May mooy sëñ Fallou rek. Mm. sëñ Fallou. Mm. booy wax soxna May da nga naan sëñ Fallou rek ndax moom léppam sëñ Fallou la. Mm-hmm. léppam sëñ Fallou la. Mm-hmm. bokk na it ci ñi nga xam ne digganteem ak sëñ Fallou sëñ Fallou dafa eggoon ci mënatu koo mënatu koo nëbb. Mm-hmm. war a mënatu mënatu koo yemaleeg ñëpp. ngir cofeel gu mu am ci moom. ndax soo demee ba am doom. tuddee ko soxna May. amaat jeneen doom muy rakk ci moom. nga mhm. duppee ko ko. Mhm. amaat jeneen doom muy rakk ci moom nga duppee ko ko. Mhm. yaa ngi won nit ñi ne kii damaa am cofeel ci moom. suñ Fallu nag daana wax ne. nit ñi nañ koy moytu ci soxna May ndax yàllaa ko natt ci moom. ci cofeel gum ko bëgg. cofeel googu nag li ci li ci li ci li ciy feeñ. lu bari la. mën nañ cee jël tuuti rek muy kër gi ngeen nekk. sëñ Fallou ko tabaxal soxna May jox ko ko. te tubaab yi doon benen bi ci des moy lepp lu lu lu lu Fallou di defal nit ci teranga rek. Mhm. defal nako soxna May. Mhm. ci jamono bi fi nek mhm. euh na nako ab dëkk. xalé yi ma togal legui di waxtan ak ñom ma ngi len di wax naan len kër gi. bu len bu len japp ne yeen da ngeen fay yam ak talibé yeen da ngeen fa am cër. ndax ñom ñi seen imam dafa dañoo bok ci ñi seigne Fallou yëkëti woon. jox soxna si ne leen ànd leen ak soxna may deleen ko jëmmal di ko xelal ndax booba du tànk la muy ku mel ni Baye Sini Ndaw xam ne ay njabootam sax ñu ngi ci kër gi ku mel ni Baye Jonn nga xam ne ñii ay doomam lañ ku mel ni euh, sëñ Moustapha mbay sëñ mën Mandour nga xam ne moo tabax lu bari ci kër yi soxna si defar. suñ man mën ak ak mag ñu bari suñ Moustapha Mbaye Codé. Mm-hmm. nga xam ne ay njaboot tamit boo xoolee ci kër gis leen. Mm-hmm. ñooñu suñ fàlloo leen yëkkati woon jox leen soxna si. Mm-hmm. waaw fi lañ nekkit mosuñoo tàggoog soxna si ba yàlla def li gën ci ñoom. bu ko defee loolu benn la ci li suñ fàll defal defal defal soxna si. beneen bi ci des tolloon na jamono joo xam ne suñ fàllu dafa taqoo woon